yonente nee na ñaari xéewal ñu bari dañ ci woro moy wër ak am temps amna ño ñoo ne buñ wéré duñ profito amna ño ñoo ne buñ amé temps duñ profito te wër lum yàgg-yàgg bi si ngi dikk feebar bu fekk ya nga am temps bi ngi dikk nga occupé kon nak jamono ji ngay dund profitool bala déhé dik bi ngay wër bala fièvre dik bi ngay am temps bala temps dik